na Hasipa Oujande eh Ngor Niakh a ngi noonu champion d'Afrique bi double champion d'Afrique oh oh laay leela la Ngor Niakh a ngi noonu waaw waaw waa les yi am nañ gën oh Ngor l'entrée de Ngor góor ñaaxa ngi noonu lu mu namoon la ndeysaan moom góor waaw waaw waaw sampana béjjén yaay ji ngor sampana béjjén yee waaw waaw war na géew beeg sengoor gi lée gaynde la ndeysaan doomu fara bugu bayi ngi e ee mburum sàll ngaari baa ngi san e he waaw waaw waaw waaw nee mu gën a oh oh fëgg na dënd ba waaw waaw waaw waaw waaw waaw eh eh waaw waaw <laughs> Massine waaw waaw doomu Faro bi <laughs> nee na mooy borom géew bi ndax chaque jour fi lay entraîné nag bu leen fàtte loolu waaw waaw. waaw miin na ko